nag bokk te wax na dëgg ndaam lu gën a quartier la ci Touba fa la dëkk ay waajuram ceeb euh, ci ñi sëñ ci Touba ci lañ bokk te noonu la amanteeg waa Tiwaawan noonu la amante ak kër sëñ Abba Sall mm-hmm. man mii am na sama doom yi nga fekk fii léegi Seexuna euh, Marème Lo mii seen maam xaw bàjj lay doon ci moom wala jigéenam donc même day am ak man parenté indi mais bi ñëwee ñoom comme lañ daan xas tariixa tasaale nañu mbooleem ñu bokkoon ci tariixa léegi nag ku ci ne wax na mbokk ci deret ba ñu jël léegi mbokk deret yëkkati ko loolu nag li ko indi bind naa ci benn article moo di ne Euh, li xewoon ci communisme communisme ñu doon dox du am parti euh, parti communiste bi nga xam ne ni Moscou moo doon seen capital nga xam ne fa la ñuy jëlee ay instruction fa la jëlee seen idéologie fa lañu koy dem di ay congrès ak ci différentes réunions keroog ba nga xamee ne Moscou ci boppam weddi na communiste mbooleem parti communiste dañoo daal di deewandoo salafisme nag dafa dee ca Màkka ca Riyaad fa buur ba ne moo ne moo ko rey jàpp sëriñ si nga xam ne ñoo doon euh, radiko yi jàpp leen tëj leen ñooñu dootuñ génn ba ba ñuy dee ñu seet nag ñi nga xam ne am nañu raisonnable nañ ñun ñu kii lañ léegi nag Arabie Saoudite moo leen jox ndigal ne leen arrêté leen sofiyanke maanaam euh, confrérie yi ngeen di xas wala dootuñ leen jox benn dërëm te bu boobaa yi mën nañ la jël si yóbbu leen Guantanamo loolu nag moo indi position bu bees bi nga ci ibaadu yi Sénégal dañuy maas ne ñëpp ibaadu mais ibaadu yi seeni kilifa seen kii dafa euh, dafay delloo jëm Pakistan ci ñi wax jamaat tabliix ñii nag ñoom di loolaa maanaam waa li ñuy wax waa alfalaax yeeg moo xam soninke yi moo xam ñoo ñu seen marja mu nga jëm ca ñi fa remplacer benn base ak euh, Ousseymine waaw ci Arabie Saoudite foofu la seen kilifteef nekk ñu jox leen instruction ne leen changer leen discours wax leen di ñëpp wax leen ne suufi yi ñu baax lañ ñu nàngam lañ nangu leen seen i daraja ak seen i maqaama ak yëpp seen siyaara xabru yeeg yëpp te loolu siyaara boobu sax dañ ko demoon ne da ngay jaamu xabru bi mais loolu yëpp weddiwaat nañ seen bopp maanaam dañoo tuub daal ñu ñu génnoon kii rek dañoo tuub léegi yal na yàlla nangu seen tuub. maanaam dañoo tuub cest à nekk ñu woon ci yoon. évidemment parce que lu tax mooy indi li ma liñ tuddee sunna du sunna am na soxna si loo xam ne pour expliquer que gudd mais dama bëgg rek yow nga jël boo jógee tey fii nga jël sa téléphone dem sa Google nga def. bataille de quatre 680 la ci li ñu reyee Ousseynou li nga xam ne mooy sëtu yonent bi doomu yonent bi moo ko jur fekkoon na ñu posoon Asan magam bañ dajeeg ñoom Karbala ñu faagaagal leen ba kenn ku ku bokk ci yonent bi ci Ousseynou desul 680 mm-hmm. parce que 680 Euh, gannaaw bi euh, quatre xalifa yi passé six cent quatre vingt ci la euh, bi nga xam ne dafa décidé woon créer benn dynastie capitale bi nekk Damas Syrie Dimashq kooku nag moo dee cent quatre vingt doomam bi ñu wax Yazid yaay ji chrétienne la woon amoon na sax église ci biir palais ba moom Yazid mooma mu ne mu ne ñoom duñ seen nguur du mën a taxaw feeg ray yu képp ku ci yonent bi ak yi daan wax ak moom lu kii di di addis ak yeneen biñ demee Karbala xeex gañe leen faagaagal ñooñu dagg boobu Ousseynou bi indi ko Damas ñu yëkk ko ci penc mi bi loolu amee ñu gis ne am na ñoo xam ne demuyoon Karbala te am na aussi ñu rëcc yoon Karbala mais ñëpp a ngi Medina fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Faatimatu mi nga xam ne moo doon doomam ak soxnaam yi ñu ñëw Medina en six cent quatre-vingt-trois ans après Karbala ñu yebal leen fa yebal fa ay euh, ñoo xam ne chrétiens yi ñoo ci ëppoon ak quelques musulmans chef de kii ñu may leen Medina Munawara ñetti fan ñuy euh, tuddee jigéen ña ci kanam seeni jëkër ak seeni baay ak seeni doom ba pare rey ñooñu ray góor ña ba góor ña jeex bi loolu amee jigéen ñi ëmb ca déwan sa junney nit judd ñoo xam ne ñële ñooy ñoo leen jur donc loolu li mu li mu indi mooy euh, yenn saa mi fi jógee six cent trente xam nga bo maanaam loolu Euh, donc boo jëlee euh, quarante deux cinquante deux soixante quatre vingt deux quarante ans rek après yonent bi trace yi fi bàyyoon yëpp ñoom yàq nañ ko lakk nañ téere yi rey nañ nit ñi ba pare yonent bi dafa ne woon bu ñu jël euh, bu ñu jël ay waxam hadis di ko bind ndax dafay bañ ëllëg mu dem bañ teg ko yemale ko ko waxi yàlla wala ñu considéré ko ko waxi yàlla di ko jaawale ak alxuraan dégg ñoom nag ñii salafis yi lijjanti nañu ak benn horloger albani albani ku dëkk albani mooy dëkk wax ne moom Italie ñoo tax albani boobu nekkoon horloger di defar montre ci kii ci Damas ci Syrie dem nañ ba génné na ñu mool ko 600000 hadis 600000 hadis yooyu man man na wax né 500 ay la dara amu ci dara du ci dëgg waaw dañ koy kii xam nga ma jox la exemple léegi bind nañ ne yonent bi moo ne dañuy fen de ñu ne yonent bi moo ne waaw waaw yooyu ñooy baat yooyu kii sarafis yi booy cabinet mm-hmm. maanaam nit ñi tey bu ñuy defar cabinet seen kër yi cabinet yi bu mu jublu penku bu mu jublu xarf parce que bu jubloo penku yaa ngi jàkkaarloo fi kaaba gi nekk di sa walla di def leneen mm-hmm. dégg nga su fekkee ne contraire bi la nit kaa ngi jël ay taatam di ko wër di jublu ko foofu yow eh, dafa loolu yoon di waxu ko mais dama lay wax exemple lu grossièreté yi nga xam ne moom lu ñu génne wala ñu ne la am na weñ boo xam ne bu dooloon tey ci ataaya ji di tëmb nii doo amoo doo ko doo ko jël sa seppi ko sànni yoon bi ñoom ci seeni fen yi soo ñu ne danga koy dugal ci biir tuuf ko sa baaraam ba mu toj ci biir ataaya ji nga boole ko naan ko ndax ndax day am feebar day ànd ak feebar yoo xam ne boo ko seppee feebar yi dafay des waaye boo ko tojee ci biir doo si feebar yi ci ay fer yu fenal yonut loolu mooy li gën a ndaw di indi ay xam-xamu ñetteeku maanaam di ko wax ne dafa dem euh, kii ñi hmm. ko xam ne dafa dem euh, gannaaw kër naka lay euh, jëlee xeer mm-hmm. pour nettoyer gannaawam ay taatam daal mm-hmm. waaw di wax ne xeer wa warta réeg warta gudd ak warta gàtt ak warta nangam yooyu dañ ci génne mm-hmm. ay hadis yoo xam ne yëpp ay foo di wax lu yonent bi yoo xam ne vraiment indi yoo xam ne dafa teg seen buur yi waaw mais takk nii yi jógee sunna mooy li yonent bi wax gannaaw alxuraan li yonent bi wax euh, loolu lañ tuddee na mais yonent bi comme ba mu fi jógee ci saa si ci biir quarante ans yi faagaagal nañ ñooñam ay ay saabaam yu mag ay kii donc loolu amul loolu ñu wax ne hadis la du dëgg la ñuy wax ne sunna la dëgg bi ñu defee loolu Karbala ak Médina alxuraan rek moo sawe te lu sawee alxuraan mu ci jamono Ousmane bu ñu ko bindee dañoo yónni dañoo yebal ci région yi chef de région bu ne benn alxuraan authentique bu jógee Seydina Ousmane nekk fa comme Caire Yaman euh, yoo xam ne lislaam yeggoon na fa jooju jamono dégg nga comme waaw léegi nag ñoom dañuy tromper nit ñi pour wax leen ni li ñuy wax mooy hadis du dëgg loolu du sunna ñoom la wax du sunna dañoo dañoo réer réeral waaw te ñu parce que hadis moom li ko waral même bu tubaab yi gasee pétrole bi ci Arabie Saoudite bi ko dan dañu ne nañu créé benn nouvelle religion boo xam ne dafay tolloog protestant yi parce que ñoom américain yi ay protestant lañ ñu bëgg a créé ci l'islam protestant ñu ne alal jii di génn na ci am loo xam day dem ci réew yi ñu jëndal ñooñu ay pajero jox leen ay xaalis tabaxal leen ay institut toujours institut bi day ànd ak villa bu rafet boo xam ne waa fay nekk jabaram ak doomam waa ci yoo xam amuñu dara mënuñu am vingt ñoom nag bu ñu waxee seen pétrodollars yooyu moo leen waxloo waaye waxaluñ yàlla waxaluñ yonent bi ndax euh, ñi ñuy def référence ay Ibnu Taymiya ak yooyu ñu ñooñu am na junne at kenn musu musuñu kenn musa wax jàng seen téere di di di ko jàngale bi alal ji ñëwee pétrodollar yi ci lañ commencé wa ibnu taymiya kii baaxul nangam nangam ki daal tijaan baaxul ki dina murit baaxul ki dina xaadir baaxul loolu yëpp nag léegi nee nañ baax na parce que ñi leen wax loo ci nii ñoo leen wax waxlawaat ci ne dañ leen ne na ngeen mel ni suufiyee yi buñ jéggi kenn ci yéen xas suufiyee kooku dana am problème loolu nag waral bind naa benn article tuddee mu tudd double double allégeance wala le double jébbalu mm-hmm. des ibaadu et des et et des salafistes comme ni ko waxee rek wax nga ñu li nga xamanteni ne moom moo seen origine ak li tax euh, comme ci say cadre rek ñu xaw reet ci ci ci orientation wu l'islam bi mhm. euh, mais euh, jamono ji nga gis ni société bi dafa am num leen di xolé ba ko ndaje bi nga xamanteni moom doon amal ci diwanu grand théâtre mhm. ku ci mel ni Modou Lo téwon fa ban fa te bon fa téwé tamit bu mu jugee internet yi ak fansam ñepp dañ ko doon euh lan ngay wax ci lolu est ce que jarna mu yegg foofu wala sen gis-gisu sénégalais yi xamagaat xam nga ni fekkee da naan taxaw noonu fecc baaxul fecc baaxul fecc baaxul sama jabar du fecc jigéen ju fecc baaxul ñu toog rek daal jël micro bi daal di yëngal say say tànk ak say kii dañ ne fecc neex fecc neex fecc neex ñi la toppee woon fecc baaxul kay danañ la wax dara ñoom dañu am problème ndax dañoo weddi seen bopp parce que ñi leen doon waxloo à à droite ñoo leen waxloo tey à gauche. donc réaction sénégalais c'est normal d'après ça. non man affaire réaction bi man nu ko wax man damay wax rek yëf yi ni mu demee waaw parce que dafa passé inaperçu parce que ñu bare bare bare hmm, affaire bi am na sax te yëguñ ko. oh.